nanu xaal juy mudaari on mu kenn dàqul beneen bëdul moom bu dee mudaari on mu ñu dàq ah bu dee mudaari on mu ñu dàqul xawat damiran waxalat minal waawi mu ni la bu fekkee dafa am waaw nag ci li nu tere woon na nga nattale ni kon jumlay lisim la de dañoo xadaf mubtadama jaa zaydun wa yadxaku ñu ni maanaa wa huwa yadxaku ni ki wayu arab ba fa lamma xashiitu adaafirahum najawtu wa arhanuhum malika fa lamma xashiitu ba ma jàqee adaafirahum seen seen gànnaay ya xeej yaag jees yi adaafir moo doon ay we arab dana ko jëfandikoo bi maanaa gànnaayu xeex ba ma ragalee seeni gànnaay najawtu laa daal di daw raw wa arhanuhum te mbir moom maa nga leen di tayle malik maa nga leen bàyyeeg waa ñuy wax malik maana najawtu kon dañu ne wa ana arhanuhum ndax feelu mu daare om mu ñu saxal la dàquñu ko kon waru laa ndag waaw suñu ko dàqoon nag man naa ndag waaw man bañaa ndag moom loolu la ni waza wa jumlatul xaali jumlay xaal si waa maa quddima ju bokkut ak li nu dawal kooku jëpp jumla ju bokkut ak mu daare om mu ñu saxal moomu rek kon bi waawin day ànd ak waaw faqat mu nekk raabit aw bi mudmarin wala damir dong muy raabit aw bi hima wala ñoom ñaar ñëpp man nga ni jaa zaydun bu dee mu daari amuñu dàq walam yadxak wala jaa zaydun lam yadxak wala jaa zaydun yaduhu ala rasihi wala jaa zaydun wa yaduhu ala rasihi wala jaa zaydun wa qad qaama abuhu wala nga ni jaa zaydun qad qaama abuhu jumlay xaal bi waawin faqat aw bi mudmarin faqat aw bi hima maan lu ci mën a والحال قد يحذف ما فيه عمل وبعض ما يحذف ذكره حذل وما قدم جملة حال بوك تجينو داولون ينو داولون ndax danu ni bu doon mu daare o mu sax daal dami rëy doon rabit ja du ànd ak waaw mukk dégg de boo fa gisee sax waaw dañu koy taawil ni nu la wax ni kon mu daare o mi day xabaru mubtad jumla ji jumlay lisim moo tax waaw yi mën a ànd ak moom mu dellu ni la jumlay xaal ju dul jooju ñu dawal na mën na doon waaw dong di rabitam dégg nga ni ki boo ne jaa zaydun wa qad qaama abuhu dégg nga mën naa bi waawin ni ki jaa zaydun bu dee waaw dong jaa zaydun walam yaqum amrun diw ñëw na te mbir moom booba amar taxawagut lu dégg aw bi mudmarin wala damir dong jaa zaydun lam yaqum abuhu tamit yi ca abuhu wala bihima maan ki jaa zaydun walam yaqum abuhu wala jaa zaydun walam yadrib amran dégg nga jaa zaydun lam yadrib amran jaa zaydun walam yadrib amran jaa zaydun qaama abuhu jaa waqad qaama abuhu wal xaalu qad yuxdafu mën nañoo xadaf maa amila fiha la ca doon jëf te mooy feel ja ko waroon na nasab ak yooyu mën nañu ko xadaf dagan na bu la nee waaw kay fa jiita nan nga dikkee nga ni ko raakiban ay jiitu raakiban nga xadaf ko loolu mën na am wa baadu maa yuxdafu lenn ci amili xaali ya ñuy xadaf nag am na ci yooyu dikruhu tudd ko sax xudila dañ ko tere am na ci fu xaal fu nu muy demee noo xam ne amil jëkkoy nasab waajibul xadfi lay doon kenn du ko tudd kooku am na ay barab boo xam ni boo xam dafa tegtale ziyaada ki nuqsaan ni ko jituhu biatuhu bi dirhamin fa saacidan wala fa saafilan ay fa dahaba saacidan wala saafilan kon loolu foofu dañ ko fee war a aat ju tegtale dégg nga seeru prix jaay naa ko dërëm ak lu ko kawe fa saacidan ak lu ko kawe maanaam ak mbir mu muy jëm kaw wala mbir muy jëm suuf a dégg nga wala nga xam ne dañu ko feddalee mat moonu jumla passé woon nanu ko axooka atuufan atoo fa ndaw fedd man moonu jumla naka noonu bu dee xaal joo xam ne dafa dikk pour taw biix yedde nga ni ki koo xam ne amu tawaani yan waqad jadda naas waqad jadda aqraanuka amu tawaani yan maanaam atoo jadu xaala kaw ni ka mu tawaani yan feel jooju dañ ko fokk ñu xasab ko xaal jooju ñu dis nasab li taw biix dégg nga naka noonu am na ci yoo xam ne dafa daw dawaayu masal rek dañoo dégg arab daan ko xasab soo dee def nit am xéwal nga ne ko xani an lak ay xani an lak moo xam da nga koy nattaleel amil xani an toojadu dégg nga hani an lak wala toojadu chey al fulaniya hani an lak am na bayit yu ko takk nag ah ah ana loolu rek eh, nii ndax yéenay jàng di def bu ñu jotee benn masala defal koy bay bayit léeg-léeg takk ko ca kooku sax man maa ko defoon wujubu xasfi l amili eh, wujubu xasfi l amili Ngoha niki wujubu xasfi laamili xaali wujubu xasfi aamili lxaali ida abda sdiyaadan aw siwaahu uxida siwaahu mu ngi ci jublu nuqsaan ka dirhamin fa ka dirhamin fa saafilan aw ukkida madmuunu jumlatin biha kama bada misaalam daaka axi muwaasiyan bimaalihi wa daa abuuhu mushfiqan bibaalihi كذا إذا جاء لتوبيخ ظهر مثالا أم توانيا وقد جد النفر أو سمع الحذف من المنقول نحو هنيئا لك يا خليلي آه، أيوه ده، أيوه. تمييز لغة موي راني ak xàmme ak séparé daal tamyiz wala fii danañ ko firee jàqee ci luxa mayyesa jàqee na maanaam ràññalee na xàmmee na tamyiis nag masdaru mayyesa moom ci istilaaxu naxwu ismun bi maanaa min mubiinun nakira yunsabu tamyiisan bi ma qad fassara nee na ismun ab lisim mm, bi maanaa min yoo xam ne dafa làmboo maanaam min mubiinun bu ji aji biral mas ah, man bahama min azawaati moonu tax di wax nakiratun buy nakira yun sabu des na ko nasab ismun mubtada la yun sabuy xabaram a ndaxte dafa am ay sifa yu ko dëgëral ismun bi maanaa min sifa la mubiinun nakiratun yun sabu danañu ko nasab tamyisan mu nekk tamyis bi danañu ko nasab bi maa qad fasarahu ci ak amil ja nga xam ne dégg nga ak danañu ko nasab ak bi maa qad fasarahu ci loolee muy loolee muy firisi moo xam min a zawaati la wala min a nisabi danañu ko nasab tamyisan mu nekk tamyiz nikin ka shibri ardin ardun ismun munakkarun bi maana làmboona maanaam min ndax maanaa mi shibrun min ardin am naa lu mat wenn centimètre loolu misaaxa la shibru mooy genn wàllu meetar min ardin nga ne ardan kon ardan xaddu tamyiz dëggu na ci xafiisun xafiis burran ab nattukaay la ma ngi mel ni yow mu ne àndaar burran ci pepp mbur mën a wéy ni ñaari mën a mënaa mooy tolloo kilo rek mooy ritlaani wa mën a wéy ni ak ñaari liitar masalan asalan ci lem wa tamran ak ci tàndarom ma ñaari kilo daal wa baada di bi wa shibhi hajrurhu ida adaftaha ka muddu xintatin xida mu ni tamyiis nag ci yiinu tudd lu mel ni ki chibru ard ci misaaxa ak xafiisu burran ci kayil ak manawin asalan ci peese tamyiisu misaaxa wala natt wala peese nee na lu ni mel wa baada di wa shibhihaag yu niroog moom wajruurhu jaral tamyiis baada di ci gannaaw yii wa shibhihaag yu niroog ñoom ida adaftaha su fekkee laafal nga ko man nga ni lii chibru ardin wala xafiisu burrin wala mën a way asalin loolu mën nga ko wax ni ki tey nga ni muddu xintatin muddu xinta pepp la xidaa un aw ñam la xinta moo di tami moo di tamis bi nde moo mënoon nga ni lii muddun xintatan ni nga naan mën a way ni asalan wa nasbu baadama udifa wajaba in kaana misla mil ul ardi zahaba wa nasbu nasabu tamyiis nag bañ koo jarak min nasab ko wajaba dan war na baadama udifa gannaaw lu ñu laafal su fekkee li nga waroon a tamyiisal dafa laaf ah kon nag léegi nasab tamyiis ja war na dootoo ko mën jarak min in kaana ndéem nekk na laafe ga mis la mil ul ard mel na laafe gi ñu laafal mil ul ard du dëgg ndax kooku mu daaf mi day taqoo mu daaf yi lay faw ndax mil uni kese kenn du ko wax kenn du ni mil u zahabin kenn du ni diw bu amoon mil u zahabin mil u fan fokk da nga naan mil u ndab sàngam mil u ardi lu fees suuf fokk mil u laaf lard su maalee noonu nag kon tamis ja dañu koy nasab kenn du ni mil ul ardi min zahab mil ul ardi zahaban su melee noonu nee na kon loolu ci la ñu wal faa'ilal maanan siban bi af'ala mufaddilan ka anta a'la manzila am na tamyiis boo xam ni tam muxawal ani ma anil faa'il am na buy muxawal anil maf'ul muxawal anil faa'il moo xam ni ci maanaa boo ko seetee faa'il la waroon doon ci maanaa lu mel ni taaba zaydun nafsan maanaa taabat nafsu zaydin loolu moom mooy boobu maanaa rek nga daal di jël tiib gi askane zayd nafsan dikk tamyiis leeralal la fi tiib gi jëm taaba zayd kon nag misaalum tamyiis muxawal anil faa'il am na tamyiis muxawal anil mafool fajjarna al arda uyunan ko nga xam nga ni mu ngi mel ni ku noon fajjarna uyunal ard lu dëgg istaala al ra'su shayban tamyiis muxawal anil faa'ili la ko naxw yi di tudde mel ni da nga ni istaala shaybu fi ra's su ko defee lay faayil ci maanaa nee na da nga koy nasak af'ala mufaddilan su fekkee da ngaa nekk di gënal ni ki booy wax ak waaye ni ko anta ala manzilan anta yow ala yaa gën a kawe manzilan ci kër wala ci daraja lu dëgg anta ala manzilan nee na kon manzil bi faayil la ci maanaa ndax ma ngi mel ni yow da nga ko ne anta ala kawe na manzilu ka loolu la niru kon faayil la ci maanaa kon dañu koy nasab waaye dooni ala manzilin déedéet wa baada kulli maqtada taajuba mayiska akrim bi abi bakrin aba waxinu arab nag ne lu ci lu ci tegtale yéem danañu ko tamyizal su yeboo taajub gu gu cosaan la goo xam ne mawduun la li alfaadin xaas ni ki baatu ma afalahu ak afil bihi wala sax boo xam ni dal ala tamyiz te woon du woon di moo doon cosaan ba ni ki lillahi darruhu mubtada xabar rekk la lillahi dar darruhu farisan wala ma akrama zaydun rajulan akrim bihi rajulan moom la ni lépp lu waxin wu tegtale tamyiz mayyiz wutal ko tamyiz ba boo ne akrim bi abi bakrin yéem naa teddaang tedda teddug abu bakr aban ci baay yaa jaarataa ma anti jaara yaa jaarataa yem naa sama dëkkaale ji ma anti kenn xamul loo doon jaara jaaratan ci dëkkaale ma anti maanaa yem naa la daal ma anti jaaratan zaydun ma zaydun yem nga ko soo nee zaydun ma zaydun rajulan mën nga ko ci teg yaa jaarataa ay yaa jaaratii yow sama dëkkaale dégg nga ma da koo def wateb nut ba nag yaa jaarataa maa anti jaara kenn xamul ko doy kéemaan nga ci dëkkaale wa wajbur wajrur bi min in shata gayra di adat wal faaili l maana katib nafsan tuban tamyiz nag am na ci yoo mën a jare min bu dee lu mel ni ki passé ni ki bu dee misaaxa wala peese wala natt ak yu mel noonu man ko passé na loolu waxoon nañu ko mu ni nag waj wajdur jaral bi mi nag min in chita soo soobee ban ngay jar nag ah xayratil adat bu dul tamyisu adat de kooku kenn du ko jar ak min lii ishrona xulaaman waaye doone ishrona min xulaamin wal faa'il al maana ak badul faa'il ci maana tamyisu faa'il ci maana ni ki tibteel nafsan ci bakkan kenn du ni taaba zaydun min nafsin déedéet dañ koy nasab yooyu yaar moom kenn du leen jarak min waaye budul moom mën nga leen jarak min soo ko defee jare ko min soo ko defee tufat ñu jariñ la mooy jawaabu chart jawaabu amru bi ujurur soo fa in jararta tufat moo tax mu jasam ko dinag wa amilal tamyi wa amila tamyisi qaddim mutlaqa wal fi'lu du tasrifi nazran subiqa wa wa qaddim jiitalal nag mutlaqan amila tamyiz dégg nga amilu tamyiz nañu ko jiital taqdiman mutlaqan moo xam jaamit la wala mutasarrif la kooku moom li nasab tamyiz na ko jiitu ñu ni faw mu ni ah wal fi'lu fi'l day du tasrif yi joo xam ne mutasarrif la du jaamit ah subiqa jiitu nañu ko tamyiis ja jiitu na ko nasran lu néew qalilan fi l arabiya qalilun fi l istimaal wa daifun fi l arabiya nasru dafa boole qillatu wa dof qillatu fi l istimaal a dof fi l arabiya ah niki tey fi'lu di tasrif subiqa nasran ah niki anafsan tatiibu binayli l muna وداعي المنون ينادي جهارا التطيب نفسا تطيب فعل مضارع ومتصرف أه جي نا تمييزم جيتو نكو نفسا واي ليد لي باريول دي ndax تمييز موم دال دا فا يلو مج حروف الجر هاك حروف هاك حروف الجر هاك اسم فعل بمعنى خذ سكو ديفه نك اسم فعل ما نتر مل لا مل turu fiil la turu fiil maanaam fiil la yor te ci lisim yi la bokk moo tax ñu tudde ko ismu waaye luy musamma ba fiil hayhaata tur la ñeel bauda ci masal ma ismu fiil la ñeel ukk fuf mooy fegul haaka ismu fiil la bi maanaa xuz xuz mooy borom tur wi haaka mooy turam ismul fiil fiil lisim la bu yor maanaam fiil bokk ci lisim yi ñuy binnaal haaka jàppal xuz xoroofa axada mutaaddi la xoroofa mafoolu haaka bu dee laasim laasim la hay haata bauda laasim la hay haataat laasim la faayil rek la mën a am ñu naan hay haatal aqiqu waaye du am mafool haaka am xoroofal fiili xoroofal jari waxee ñoom moo di min ak ilaa ah seeni maanaa nag dana ko wax dégg nga حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو موي واو القسم التاء والكاف والباء واللعل في لغة هذيل ومتى نيو لغة هذيل أك أقيد ñaari kiir yooyu mata lugatu hudayl oqaylit ndax danañu wax naan axrajaha mata kummihi ay min kummihi mata ci seen loxo bi maanaa min ah ah aywa bi su ko defee nag yooyu ñoo di xarafi jar yi léegi nag mu séddale leen ku nekk am na yoo xam ne lisim ju mu jot jar ko comme baa am na yoo xam ne déedéet du doon lisim am na ci yoo xam ne lismu zahir lay jar du jar damir am na ci yoo xam ne lismu zahir bu ne du ko jar déedéet nang diw ak diw nangam ak nangam ci lismu zahir yi lay jar du jar lismu zahir yëpp sax mu yooyu nag lay détaillé uxsus jag-jagleel muz ak munt wa xatta wal kaaf wal waaw wa rubba wattaa yooyu jagle leen bi zahir ci lismu zahir yooyu mu lim benn du ci jar damir mund ak muz dana wax la ñu leen di jagle ci lismu zahir yi nan ko ba ba àgg ca waaye daal lismu zahir rek la ñuy jar du yëpp nag waaye dana ko wax léegi dana la wax ne waxtu rek la ñuy jar xatta du jar damir mukk ah dégg nañu de fatan a fatan attaaka dégg ah xattaaka yabna abi ziyaadi fatan attaaka yabna abi xattaaka dégg nañu ko de jare ko gaaf waaye nag loolu moo naadir bu kenn dul qiyaas kaafit kenn du qiyaas jaram lu dul lismu zahir ànd ak dégg nañu falan tara baalan wala xala ilaa kahu wala kahunna illaa xaadima wal waaw du jar damir mukk abadan rubba du ko jar dégg nañu de rubbahu fityatan waaye naadir la boo xam la yuqaasu alayhi wa taa du jar damir lismu zahir ba muy jar du yëpp dana la ko wax laahi wala rabbi rek wax sus jagleel bi mu muz ak munz waxtaan waxtu néewoon naa la du lismu zahir bu ne zarfu samaan dong la ñuy jar rubba itam ne woon naa la ismu zahir rek lay jar waaye na nekk mu nakkar du jar maarifa wa taa u taa ne woon naa la lismu zahir rek lay jar waaye du yëpp lillahi wa rabbi ñaari baat yooyu lay jar tallaahi wala ta rabbi rabbi benn mu laaf damiru mutakallim wala mu laaf lafdul kaabati ta rabbi wala ta rabbil kaabati wa naadirun an yusmaa ta xayaatika ak ta rahman su ko defee rubba nee na la ah lismu zahir la wa ma rawaw li ñu riwaaya nag min nahwi rubbahoo fityatan daawtu ila ma yurisul majda wala hamda daiman fa ajabu kooku nazrun qalilun daifun la yustaamal kada naka noonu kaha walan tara baalan wala xalaila ay nag yàlla lay wax kahu wala kahunna illa xaadila kahu ak kahunna wa naxu hoog lu mel na moom ataaloo xan dikk na xataa dégg nañu ana kii wa ana kaka wa anta kii maag yow yam yow yaag ma ci nawaadiri waxi arab kenn laa yuqaasaan ana kaka wa anta kii maag yow yam yow yaag man a yam dégg nga su ko defee mu dem nag ci seen maanaa yi baid na nga lennal bi min ci min baid bi min baid lennalal ak min niki axartu min al maal maanaa baadal maal wa bayin biralal niki fajtanibu rijsa min al awthaan min moomu ay rijsa alladi huwa al awthaan day firi mooy binum bayaan wabtadi tàmbaleel bi min fil amkinati ci ay place moo gën a bare surtout min addaari ila al masjidi surtout min qaryati kada ila kada ah waaw min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa bi min ci min waxat taati mën na dikk xat ak mudaare o day tegtale ne dana ami tàng dañ nga jare ko li bad il asminati ni ki mutirna min al jumuati ila jumuati la masjidun ussisa min awali yawmin axaq loolu ci zamaan la wasiida yokkees na min itam dana yokk bu ko dàq jiitoo ci nakira def dégg nga juy mubtada wala fail wala maful du dëgg maa jaa ana min bashirin wala nadir bashir ak nadir nakira la ñu jar koog min juñ dollant nde ñoom ñooy moo di faayilu jaa ana ña ngi ko jar ak min mi waaye barabu rafaa la nekk di mubtada ah di faayil maa jaa ana nadirun wala mu jar mubtada maa li baaxin min mafar ji mu misaalale boppam mafarru mubtada la li baaxin di xabaram waaye nakira la yoo xam ni ak dàq gi fokk da koy jiitu waaye duñu ko def ci isbaat doo ni jaa anii min ahadin déedéet waaye mën nga ni maa jaa anii min ahadin te moom day dëgëral gën a fedd li gën a totaale dàq gi ah yaxfir lakum min dunubikum man nay minum tabid ah ah man nay minum tabid wallahu aalam yaxfir lakum min dunubikum ah mën nañu ni baada dunubikum la waaye ndax su ko defee bàkkaar yépp dana leen baale mu kom bu ko soobee nag ah yaxfir lakum min dunubikum ah dégg nga nakiratan fa jar wa shibhi maanaa wasida fii nafiin bu duggee ci biiru dàq wa shibhi lu ne roog nafi ni ki listifhaamu linkaar yi fa jara muy jar nakiratan ni ki xaw ka xawlihim maa li baaxin ñeelul aji bew min ma farrin benn jaarukaay daw su ko defee mu dem ci xatta li lin xatta xatta walaa mun ak laam yooyu yaar wa ilaa ak ilaa lil intihaa xataa walaamun wa ilaa yooyu yat lil intihaa pour yemale yeggale la ñuy firi dégg nga intihaa ul gaaya wala makaan misaalu zamaan kon wala makaan misaalu zamaan salaamun hiya salaamun hiya xataa matlaci alfajri walaam kullun yajri li ajalin ilaa kullun yajri ilaa ajalin yëpp am wa min wabaaun yufhimaani badala min ak baa seen maanaa yu fi maa ni dañuy dégle badal badalan wecc ni ki biatu ma min misaalu min raditum bil xayaati dunia min al axirati maanaa badala wecceeku ko wa baa un mese biatu sawba bi dirham yooyu maanaa wecceeku dirham min ak baa seen maanaa dana dikk ñeel badal wal ah walaamu lil milk laam ba tey moom comme dana doonoon lintihaa ni ki li ajalin dana dikkit ñeel moomeel maanaa cosaan la ci moom tegtale kooku nag mooy moo di cosaanam dëgg-dëgg tegtale moomeel almaalu li zaydin wa shibhihi lu niroog moom mooy lixtisaas wala listihqaaq lixtisaas boo nee asarju li daabati daaba ji dafa jëndi woon marché teggi déedéet waaye nag muxtasun la bihi bayna al xayawaan yi daariya xayawaan yi ci kër gi daa fas wi dabba ji moom lañ ci féetale teg bëy ak xar yi amuñu ko su du dëgg kon nag shibhul milk la nde du milk milk mooy ki ko def mooy ki ko malik mooy ki ko jëndoon wa fi taadiyatin wa qufiya topp nañu ko moom laam fi taadiyatin ci jalgati wahabtul maala li zaydin ay wahabtu zaydan al maala nga bëggoon wax wahabtu zayd li maali dégg nga wa taalilin ak taalil kooku cosaan la ci ba tey eh, jiitu lil qiraati gi ngir taalil illa mooy li la tax a dikk landa nga ne lil qiraati nga ne jiitu li nangam ah, la- li dikraaki la taaroo nii dana ma gaar hizzatun ak yëngatu li dikraaki ngir fàttaliku gi ma la fàttaliku wasiida yokkees na laam taqwiyatan lil aamili daifi li kawnihi faran aw li taqaddumihi ala al maamul danañu yokk laamit ci fan li taqwiyati ngir may doole aamil ji aamil lu koy néewal doole li taqaddumihi xëy na jiitoo li ka ka- jiitoo maamul na doole li ki ni in kuntum li ruya taaburuun taaburuuna mooy aamil ji ruya mafaulu taabiruun waaye nasabu ko ah, xanaa jar koog laamu zaida dëgërale ko may ko doole amil jële néew doole taaburuuna fiir mu taaddi la amoon na doole waaye nag amil balaa am doole xata yatasallatu ala al maamul da koy dawlu mu dikk mu song ko foofu la amee doole amma bu ko maamul mi dawloo mu door a dikk doole ja day perdal tuuti ñu dug dolli ci laam nag ci maamul bi in kuntum lir ruya taaburuun su su taaburoon dawlu woon ñu mën ne taaburoon a ruya rek dégg nga wasiida li wasiida mooy danañu ko dolli taqwiyatan lil aamili li taqaddumihi li taqaddumi maamul li taaxurihi ngay wax moom ma aamil aw li kawnihi faran sax dadul fiil xanaa di sifa ni ana daaribun li zaydin loolu mënees na ko wax ndaxte li mu dawlu dawlu nag fara la ci amal xam nga ni fiil la cosaanoo jëf ismu faayil dafa yor maanaam listixaaq gi dox nga tax mu taasu ci barkeb fiil ba mën a am mafool waaye nag bu la neexee dëgërale ko laam nga ni ana daaribun li zaydin ana muhibbun li zaydin a dégg nga wa zarfiya tastabin bi ba wa zida wa zarfiya tastabin bi ba waaye kii téere beet lu bare ay yàq la day rotal rek wa waaw wi sax andi ko wa zarfiya tastabin bi ba wa fii wa qad yubayinaani sababa baa nag wastabin birlul a zarfiyata te kooku cosaanam fii boo ko cosaanoo na nga ko birlu bi baa in ci baa baa dana nekk di zarfiya wa ma kunta bi jaanibil garbi fii jaanibil garbi ah ah wa billeyli atamurruuna fil leyli wa fii fii it zarfiya la kooku cosaanama de dëgg dëgg fii moom jarul misaal mooy loolooy xaqiqa loo doon cosaanu wa qad yubayyinaani waaye min ak baa ka- fii ak baa mën nañoo biral sabab ba tey misaalu baa fa bi zulmin min alladina haadu fa bi ma rahmatin min allahi linta dégg nga maanaam bi sababi zalik dégg nga ci fiit daxalat imraatun naara lu luy sabab ba fii hirratin ay bi sababi hirra benn sababu wundu woo xam ne rabatatha wala hiya atamatha wa lam tatrukha ta'tul min xashaasi ta'kul min xashaasi l ardi xata maatat juu'an fa daxala naara jigi am na jigéen ju dugg safara xadiisa ko daxalat imraatun naara fii hirratin rabatatha la hiya atamatha wala hiya tarakatha taakul min xashashi l ard yow na wund joxu ko ñam e ba yeggalit bàyyiwu ko mu rëbb ci rab yu tuuti yu gunóor yeeg yëf yeeg janax yi mu daan dunde ba mu faatu dem jigéen ja dee ñu lakk ko safara ngir loolu moo tax loolu min baabi rifq bil xayawaan wa adami idraarihi loolu moo taxoon xadis boobu jóg kon daxalat im imraatuni naara fii hirratin fii bi maanaa bi sababi hirra